ci dëkk bi di Lompoul village Bernardo ba Futtu jëmal si waa GCO ak waa eaux et forêt gannaaw bu ñu sukkandikoo seen ay kàddu ñooy joxoñ baaraamu tuma ñoom ñi bëgg a akimoo seen ay tool. day tool yoo xam ne suñuy maamaat dañ fee nekk ba yàlla dogal suñuy maamaat jeex suñuy bàyyi ne fi bàyyee ko ñun ñu di jundal suñu njaboot. ñëw ànd ak eaux et yi taxaw ñu fii eaux et forêt ko moom te ñun fii eaux et forêt ba ñu koy bay eaux et nekku fi. fii kenn na tëggu ko benn ñi nag ku fi jaar waaye nag bala nga fee jaar da nga koy natt dee demancé nit ñi ba bu ëllëgee ñu mën a am lu ñu dundale seen njaboot. jàmbat yi nag bari na lool si askan wi ba tax ñoom ñii di ñaax état bu Sénégal ngir mu àddu si lu mu mel rawatina coowal GCO mu exploité zircon bi. GCO bi mu fi nekkee ba léegi day nax askan wi te léegi ñun fer nañ ci ay nax. te su boobaa nag bu yeboon ñu bañ a waxaati programme tourisme ministère du tourisme su yeboon ñu dañ ko sax wutal ab ministre wàllu tourisme lompul ni mu ci avantage dara lu dul désert bi ci désert bi jësi woo da koo a jël xoolal ñi fa nekkoon tey ay téeméeri téeméeri doomu aadama waa lompul tey des na tuuti fekk un mois xamatuñu fu ñu jëm am na nga xamante ne dafa jëkk ju tey ñaaw ñu di yor ay toolam di jàppale ay njabootam talul lekk talul naan daf lu nekk pour njabootam tedd am dara nekk ci tool yi taloo dara dak ay béy gone yi taxawale ngay turgee lépp nga tey benn jour ñi da ngay seen tool seen kaw jàll nekk askan bi yeewoo si dëkk bii di Lompoul village taxaw nañ tembe ngir aar seen ay suuf rawatina su loxoy GCO ak waa eaux seen ay tool